ki xaritu internaute yu ñuy seetaan ci People 221 je suis en compagnie avec une xale yi bëgg ko sénégalais yi adopté ko mu nekk série capitale di ko di ko cartonné vraiment quoi qu'on la boo xam ne bu am talent la na ko producteurs yu mag yi bàyyi xel. Eva maa ngi lay ziar sa fer rafet na de. maa ngi lay delloo ziar merci beaucoup. sa <laughs> wow bët ba indiwaale ko ci ndogo <laughs> ah, wow bët yow yow. non. li nga wow bët ci série bi te da da nga ci am talent wala naturellement da ngaa wow bët yow. non melu ma noonu nag. Hmm. waaw doy kaa. non non ak sa digganteeg yàlla. <laughs> tuuti rek. Ah, ah mi ngi noonu bu mag alors. da euh, mhm. relation nga am ak Toch. Euh, Toch sama la. sama xarit la sama xarit bu baax la am. macha allah fan ngeen xamante. Euh, Kër Massar fii. ay ah, fi nga dëkk. man waa. Kër Massar mi ngi bëgg bëri talent de jaañ ñaar Toch ak Eva. <laughs> fi laa dëkk. macha sa intégration biir capitale comment c'était. Hmm, mun naa ne lu yomb la te aussi tamit méttiwul daal. nan la demee. Euh, genre dama xamanteeg euh, réalisateur bi sama xarit la Pape Barham maa ngi koy nuyu de passage euh, moom moo ma contacté laaj ma ndax damaa bëgg bokk affaire yooyu noonu après ñu wax si. Mhm. di nga bi mu la waxee ñëwal bokk si nga dem bokk si. nga dem ñun la personnage bi ngay joué ñun la da ngay wow bët da ngay bëgg kaa naka nga def ba int dugg si biir ci biir bi. ah mën naa ne début bi métti woon na mais après au fur et à ñu dem may dem ma dem ba gën miin daal mooy loolu ma dem ba adopté si mu dugg ma daal. son actrice bu aay ci ci kaa ci seytaane nga baal ma ci terme bi ci jaxase ci wax si lu soo yoon newul naka ngay def ba aay ba aay ci loolu. ah je pas man. Euh, eh, bu ma wax je sais pas nga joué ko yow. <laughs> non li may wax nag dañ ma koy wax. non mais du lépp lañ lay wax loolu la il faut nga improviser. waaw am na yu may improviser mais tamit du si ëpp dañ ma koy wax. dañ la koy wax waaw. Eva yow ñaata nga <laughs> ans. temps nga may jox. deux nga gis succès bi capital am ñëpp naan Eva Eva ñëpp di la bàyyi xel série bi ñu si bëri suñuy commentaire si yow la ñuy commenté loolu la la lay def. ah dama ciy kontaan euh, parce que tamit loolu mën naa ne lu neex la. def loo xamante ne ñii ñu ngi ci kontaan di ci gis seen bopp bu baax mën naa ne kontaan naa ci daal. sa concurrence ak booy nekk Virginie di kaa comme yow yaa ñoom ku dàq kaa. <laughs> non ay reer daa mel ñooñu yàlla dàq kaa de. non non non non. ñooñu yàlla dàq kaa de kaa. dàquma leen kaa. yàlla ko dàq non nga quoi Kër Masar da ngay génn xale yi naan la kañ photo. astafurlah bàyyi li nga wax. star nga quoi Kër Masar. lan ngay lan wax sa soppe ah maa ngi kontaan si ñoom maa leen di béggee bu baax aussi. maa leen di béggee bu baax a baax waaw. kaaw goo fi kenn baax baax waxoon naan tos lekk mi doyut doyut. maa ngi kaaw de maa ngi. kaaw gum déem ko kenn du xam waaw waxal. après naa leen ko wax waaw après naa leen ko wax. tos lekk yi doyul de dégg naa da koo leb sax. lépp doy na. <laughs> dégg naa da koo àbb de yii yëpp da koo àbb. kuddi yi la àbb kuddi yi moom dégg naa da koo àbb. <laughs> merci kontaan naa. ok merci beaucoup.